Ah, lii mooy def mooy saa bu ma xëyee sama euh, lii quoi sama brouette laa yor brouette ak peel bii ak pikk ak marto ndakaaru fépp foo xam ne maanaam fuy oto yi jaal tali bi am na ay pax ma ma ma xëy ma defar ko te kenn fayu ma salaire aw ma salaire aw ma dara. non xëy na suñu borom moo moo dogal lool. maanaam boo nekkee ci ab ab réew da nga am njëriñ quoi bu bul xaar dara man nag. xaaruma dara quoi waaw idée bi ni mu ñëwee rek comme c'est simple quoi parce que benn jour dama mosoon xëy fenn benn li quoi benn sànc nii ma gis maanaam oto yi fu ñu jaar oto yi di yàqu di jaar naan këng këng këng man sama benn booy ma ne ko ma ne ko lii lii baaxul mën a yàqu oto mun nañ ko defar dañ mun nañ ko defar après ma essayé ko boobu ba léegi wax dëgg yàlla euh, maa ngi ci job bi quoi xaw na yàgg tuuti quoi mais li mooy sama liggéey moom damay xëy fu ne Dakar damaa dama borom oto yi xàmmee ma macha allah. ma njëkk Dakar mooy fi ma dëkk quoi ñaari tali foofu laa ñu njëkk commencé après may def noonu dem fu ne nag damay dem maris damay dem fu ne fépp foo xam ne xam naa fa rek mun naa fa ak sama brouette ma bu dama koy pousse ba foofu sax wóor na kenn fayu ma. waaw des fois sans dépend mun naa xëy foo xam ne comme par exemple euh, mun na am comme xeer yi quoi ma ma lii ko def ko ci des fois ma ma am lu xonk lii ma def ko ci parce que bu dee lii boo ko defee day xaw a dëgër quoi dëgër na quoi. fa la may ma ma tibb ñëw sotti defar ko bu fekkee aw ma lu xonk lii damay wut ay ay xeer quoi garawaay ñëw defar ko waaye danaa ko defar ba oto yi mun a jàll parce que lii mën na yàqu oto lii baaxul quoi mu mën na indi accident mën na indi lépp daal parce que da nga gis ko yor otom dawal lu bari ba nga ñëw teggi sa tànk fekk ci biir pax bi nga nekk te wóorul man nag loolu ma gis ko franchement mu metti ma trop moo tax may may xëy may joob lii quoi may def lii bon euh, sant yàlla quoi parce que bi ma ko dalee def léegi xaw na yàgg trop mën na ñaari at ak xaaj mais nit moom ay borom baax lañu am na ñoo xam ne bu buñ ma rombee ndeysaan dañ may nuyu wala ndeysaan ñu may encourage wala ñu may ñaanal mais xam nga ñëpp yemuñu am na ñoo xam ne ndeysaan buñ ma rombee sax dañ may mere te man defuma leen dara billaa wallaay jëluma alal jaamu sàccu ma lii defuma mars mënoon naa dem taali pona wala ma def marché wala ma dem agré waaye def ma yooyu yëpp man di war wax dëgg yàlla am na ñoo xam bu ñu rombee wax dëgg yàlla dañ may bëgg am na ñoo xam bu ñu dañ may bañ mais xam mo moo moo demee noonu mais sant yàlla incha allah du ma découragé non man kay lii rek laay def instant lii kese kese lii lii rek laay def saa bu ma xëyee lii lii laay def wóor na yàlla te xaaruma kenn encore waaw am am am naa soxna kay waaw wun ne mu ngi kër ga billaay wallaay sama soxna moom ak sama yaay au début fekk may commencé def lii daf ma naan naan est-ce que lii wóor na est-ce que nii nangam nangam man na ko xam nga la moo bon si doomu aadama ngay xëy di toog wala ngay xaar wala ngay jël alal jàmbur waaye dafa loolu yëpp kay wax dëgg yàlla bu njëkk bu ma wax dëgg yàlla dañu ma naan xaw a naan ba bàyyi lii waaye léegi bu ñu demee ba xam ne lii li may def baax na moo tax ñu instant waxuñu ma dara moom wax dëgg yàlla parce que instant dañu may encouragé sax dañoo nekk ci rek na man kay li ma na trop li ma soxla bëri na trop ndax des fois damay xëy fenn par exemple nga gis benn pax day nekk ci ab tali wóor na yàlla billaa wala garawaay bi ma ci def day day day day xaw a xëcc quoi day xaw a sorante kon donc man li ma li ma gënoon soxla mooy ku ku mu mën a jàppale mooy ci lii quoi moto trois roues yi mooy trois moto yi mooy am kees yi su ma ko amoon boobaa mu mun naa wut beneen élément bu ma may ànd ak moom may ànd ak moom loolu tamit wax dëgg soxla naa ko su ma amee leneen tamit lu xaw a tane lii tamit ma ma dem. ma dem non comme comme Diop rek. du joob rek waaye lii moom wax dëgg yàlla joob la ndax moom nit moom même booy xëy même boo amul dara rek fexeel nga nekk ci dara rek man moom pour l'instant maa ngi ci joob bi ba ba sin boroom ñëw daal xaaruma kenn nag mais ku ñëw daal baax na déggoo lu ma la wax instant xam naa fu bari xam naa fu bari wóor na yàlla borom oto yi sax dañ may informé dañ ma naan bërëb sangam doo xëy foofu baaxul parce que xam na ne man rek benn benn lii defu ko benn jeune defu ko ma man kese saa bu ma xëy ma maa koy def sant yàlla parce que borom oto yi xàmme nañ ma xàmme nañ li may informé billaa wala dañ ma naan bërëb sàngam gis benn pax dañ nekk ci tali mais xoolal billaa wala kenn du ko defar man rek ma maa fay dem jël sama bureet dem ba foofu di ko defar billaa wala aw ma sereer aw ma dara sama danañu moom mooy maanaam ñi nga xam ne yooyu ndeysaan mën nañ ma romb duñ ma comprendre ko duñ ma comprendre li may def man damay volontaire liggéeylu ma kenn damay volontaire sama bureet laa yor kenn fayu ma weer encore kenn kenn fayu ma salaire li wax daal mooy ku ko mën a jàpp jàppale tamit mën mën naa mën naa jël